nu delloo sunuy xel ca buur may karim teyit lum dogal moo ko sañ moonu moom ñu delloo sunuy xel ca buur may karim teyit lum dogal moo ko sañ moonu moom te buy bind jaamam lu tàggoo du laaj bu jël dulaaj mooy ku am til moroom ma jooy jooyu xool ndax dañoo ñàkki baay yu baaxoon te yu rek mooy karim boroom bey ki jël baay musaak baay sëriif mu doon mbir mu lool ci seeni doom te moo yóbbu baay paap wa baay jëm corook wa allah yàllaay azim xajoon ngeen ci duniyaa ne seen jëf yu yi ngeen jëf ci duniyaa walaay duutu giim ba nii jooy pareegun mu ci doonoon gënu waa mbajaan far ñu luum mu ñun waa mbajaan jaaxle nan ñàkk nan ki daan gindi way suuf moom la tiim ki daan jóg di dox tànk salaam la buur yàlla jël moo ko san du juum ki daan jokku mbokk ak di boole njaboot di leen dénk ay baat yu baax lool ca ñoom te mooy baay Omar mooy ko xëy daat ne mes mu tiis lool ci ñun yàlla rek mooy karim te kum gis lu xaat xaat mu jox lay yu lëm ay njariñ nan di roy ay jikkoom taraañeewuloon kam juróom kum juru ne daa boole boot ñépp ñoo yam ca moom ku cay deñ ci soonaat mu jóg daal di dem ku cay war mu ñu baay Omar moo ma yéem tasun baay seen dogal lañ jëloon ba jébbal ko sun baay Omar ndax jikkoom te daan kaat tiraalooy magam ak rakam ba fu mu jekki waa ñépp bég ngir meloom te jàmmam ja moo tax ñu daa dem fa moom ne moom ak njabootam la def ay moroom te mu wax lool dañuy bég ree mu dénkaat ñu baat yooyu dañuy mujj yéem keroog ban ko seetee la suñ xol yi jeex walaay yàlla ren mooy ku am til moroom mitiitam weteewul mu jóg toog tama ñu góor góorlu leen yàlla buur bey karim murid dëgg moo dem bu seex rafaal te doyloo sëriñ am di am cër ca moom tapaat paat bu bam yoroon njabootu sëriñ am di daa ñëw ba moom tabib bi demee rek daa day misaal ne góor yàlla moo wuy di rabbul karim bu digaal jumaay bis ba baay demee ci biir weeru koor lan ko jébbal boroom keroog daa ko seeroo ca laa door a gëm ne nekkul ci dunyaa ba tax man malum keroog baa ko seeroo ca laa door a gëm ne nekkul ci dunyaa ba tax man malum ma delloo samam xel ni dunyaa du kër samam xel xalam yàlla buur benn moom te seedeem ya doon jiib walaay dal na xel ñu ñaan yàlla buur teeru koog yërmandeem ayaa rabbana sun borom maa ngi ñaan nga teeroo ko mbég bar ca seexul xadim ayaa maalikal mulki man maa ngi ñaan nga dootil nga ni maam ya ak seeni doom sa sun maam ya jiitoon nga jox leeni kër te firdaw si ndax yaay ku am til moroom te kër maali faal dagga tuuba murid ma ñaanal fa sun maam yoon suuf di tiim tasaam xel mi jaax xajul ci bayit ne sun maam yoon seeni jëf dul tujiim ma xaan mooti ñaan yàlla buur bi ngërëm wasallim salaaman alayhi ya duum maa ngi ñaan képp koo xam ne nii sunu maam la ju jiitu ji woon ak sunuy bàyyi ak sunuy bàjjan te bokk ci waa Mbadiane ak mboolem jullit sunu borom tabaaraka wa taala yal nañ leen jéggal te teeru leen aljana ya gën a kawe